asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu alhamdulillahi alladi axyaana baada ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 delsuwaat nañu ak suñuy mbokk ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu bi ngeen di si ànd ak seen mbokk Ibrahima Drame ci wàllum xarale gi Basiru Cissé gannaaw buñ santey buur yàlla tabaraka wa taala julli si nant bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal ñëpp di sàkku ñaan ñëpp yal nañu yàlla nangul lépp lu ñu jaamu ci weer wi ak ci waxtu bu mag bi nga xamante ne moom lañu ñu dégmal walla moo jot a jàll ñu ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yataqabbala minna wa minkum saalihu amalana lépp lu ñu woor yan na ko yàlla nangu lépp lañ fa jaamu yàlla yan na ko yàlla nangu lépp luñ fa saraxe yan na ko buur yàlla nangu ñu xam ne ba léegi ñu ngi nekk ci weer bu màgg wi nga xamante ne moom la buur yàlla tabaraka wa taala waajalal xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu doon waajtaay boo xamante ne képp koo xamante ne jullit nga war nga si war a mën a bég bég bi nga xamante ne doo ko mën a am ci feneen wala ci leneen lu dul ci fu ñu suñu borom joxoñal subhaanahu wa taala ñu ngi xam ne borom bi tabaraka wa taala mu ñuy wan ne lépp li ngeen munti def ci la nga xamante ne mooy ci weer wi rawatina ci bés yi nga xamante ne mooy bésu lojj bésu reyndi gàtt yi bésu defar gàtt yi borom bi tabaraka wa taala mu ñu bëgg a won ne ci suratul hajj baada audu billahi min alsheytaan arrajim lan yanaalu allaha luhuumiha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum kadalika saxara saxaraha lakum li tukabbiru allaha ala ma hadaakum wa bashir almuxsinin inna allaha yudaaficu an alladina aamanu inna allaha la yuhibbu kulla xawaanin kafuur suratul hajj mbokk yi yal na jàmmi yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot buur yàlla tabaraka wa taala mu ñu xéewalal mel buur yàlla tabaraka wa taala ma ñu yénkeewal li mel moo ngi ni di ñu baaxee wonne amul dara li ngeen di jëf ci bés bi lu dul la ma soxla dong mooy la ma ci gënal la soxla keneen la soxlal leneen la la soxal yow jaam bi loolu yow la concerné waaye man yàlla la ma soxla ci yow ndegem def nga ko loolu mooy la tax ma mën a accepter jëf ba nga jëf kon nañ leen bokk dugg ci géeju alquraanul karim ñu géem a taataan andi la yàlla soxla ngir jaam bi nekkee ko bés ba mooy lan borom bi tabaraka wa mu ngi nii du ñu baaxee mu ne ñu lan yanaalallaha luhumiha yàlla jëfandikuwul dara ci ndawal ba ngeen di jëfandikoo yéen doomu aadama yi wala dimaa'uha waaye buur yàlla soxlawul dara ci deret ba nga xamante ne moom ngeen di tuur walakin waaye lu fi nekk la yàlla soxla ci yéen yanaaluhu taqwa minkum ragali yàlla la leen bëggal ci loolu ngeen di jëf loolu ngeen di jëf keroog ba ngeen di defar seen ndawal keroog ba ngeen di tuur deret la yàlla soxla ci jëf jooju mooy na ko ragali yàlla fonde na ko ragal yàlla lal bu ko ngistal lal bu ko puugaréewu lal bu ko dara lal lu dut ragal yàlla ragal yàlla bu nekkul fondement jëf jooju ngay jëf ci fukkeelu fan ci weeru tëbaski bu dee jëf jooju ngay jëf de ragal yàlla lalu ko yàlla nee na bëgguma soxlawuma na xar bi tollu sama yoon nekku ci na mbir bi mel sama yoon nekku ci na ko ragal yàlla lal kon yow mi jënd sa xar na ko jënd ngir ragal yàlla na ko jënd ngir topp sunna muhammad sallallahu alayhi wa bul ko jënd ngir da nga bëgg a won waa koñ bi ne nii nga toll su ko defee yàlla ne bëgguma bu ko jënd ngir waa koñ bi xam ne la nga jënd nii la day su ko defee yàlla nee na bëgguma jënd ko bi niyatun xaalisatun lillahi subhaanahu wa taala na jënd sa xar ngir nga yéene ci yàlla dong tax ma jënd xar bi am naa ko mën naa ko jënd naa ko waaw nag ko loolu dong tax waaw keneen ku xool leneen keneen ku wax leneen kooku yëfu kooku la kooku loolu moom la concerné waaye yow sa yéene na ko yàlla dongalal yàlla nee na na jënd kuy ju baax kuy ju mat jëndal kuy ju baax kuy ju mat nga sellal sa yéene ni yàlla man ngi lay ñaan yàlla nga ci rocc ngistal ba mu set wécc yàlla nga ci rocc ci déggtal ba mu set wécc yàlla lii ma def nii yaa ma ko manloo loo yaa ma ko may yaa ma ko kattanal moo tax ma def ko de waaye defuma ko ngir ngistal defuma ko ngir ñu wax defuma ko ngir ñu waxtaane ko defuma ko tamit ngir daal di def règlement de compte sama diggante ak nit ñi defuma ko tamit ngir ki ma doon xeeb mu xam na ma toll defuma ko ngir loolu yépp yàlla yàlla nga rocci ngistal ci lii yàlla lii ma jënd nii mu doon li wajhika yàlla na doon ci sa jëmm ju dong tax ma di ko def ndegem yéene bu sell bi nii la toll yàlla ne su boobaa bëgg naa ndax yow li ngay jëfandikoo yàlla nee na bëgguma ko moo tax mu ubbil la aaya bi mu ne la lan yanaala llaha luhuumihaa lan yanaala llaha luhuumihaa yàlla nee na bëgguma ci dara ci yàpp ji ndawal bi bëgguma ci dara soxlawuma ko jëfandikuwuma ndawal bi melu mag ndawal bi lenn ndax du suma jëfandikukaay la yanaalu llaha luhuumihaa yàlla nee na ndawal ji bugguma ko soxlawuma ko toppatawuma ndawal bi wala dimaauhaa soxlawuma deret bay tuuru bu toqak buy woyak bu xonqak melokaan bu doomu aadama yi di gémm xool yàlla nee na kaccat leen ma ci sama yoon ne ko ci bugguma ci ñaari lenn du jàpp bi du deret bi ndax ñaareel doomu aadama yi ndawalu xar bi la ñuy xool nu mu toll oh xar bi yàpp bi oh xar bi nangam xar bi sangam xar bi béggin bi xar bi xar bi lépp lu nekk ci xar bi doomu aadama bi du ñàkk mu am lu mu jëfandikoo yàlla nee na man soxlawuma ci loolu lenn loolu seen yëfla la yéen deret bi seen yëf ndawal bi seen yëf béjjin bi seen yëf la jeen bi seen yëf la la nekk ci xaar bi abz lépp yéen a ko moom loolu seen yëf la man li ma ci soxla amaane yéen loolu soxlawu leen ko amaana loolu yéen bàyyiloon ci xel te man loolu laa soxla mooy lan ragal yàlla na tax nga def loolee na ragal yàlla tax nga jënd kuy bu mat kuy na ragal yàlla tax nga débloqué trois cent mille quatre cent mille cinq cent mille nga jënd xar bu mat xar na ko ragal yàlla tax yàlla nee na man loolu laa soxla yu bàyyi xel loolu c'est ça le problème waaw ñun ci luñ dut bàyyi xel yàlla ne loolu la soxla waaw ñun ci luñ yàlla ne loolu la soxla moom ñun ci lu ñuy bàyyi xel la ñuy coow di ko waxtaanee yàlla nee na sama yoon nekku ci loolu soxlawuma ci dara moo tax mu ne lan yanaalu llaha luhuumiha yàlla nee na bugguma ndawal bi de yàpp bi bugguma ci dara ndax du ngeen ma yekkal ndax bu ngeen koy def sax du ngeen xam fu ngeen koy jaare waaw kañ coono boobu noonu teggin naa leen ko ba tax na na yem ci yenn rek lekk ci denc ci maye ci waaw lekk ci denc ci maye ci kenn du ko jaay kenn du ko leble waaw ah, waaye sénégalais nag damay rey xar paate rey xar paate jël la ci xar bi àndil ma ma nit ma jël la ma rey jox ko or ko miskin beeg faqir baa ngi ne ñoom kenn joxu leen amuñu paate dafa war a jël la mu rey ci xaram yóbbul ko miskin man ma jël ci la ma ci sama xar bi yóbbul ko faqiir bi faatu jël la mu ci xar bi yóbbul ko jirim bi noonu lañ koy doxalee bi keroog ñuy partager la tax ñépp mën a ñam lu neex bés boobu bésu partage la waaye nga jël di yóbbul koo xamante ne yéen a toll ci doole or ko ki leen féete ci suuf ko ko amul sóoraalawuleen ko ngeen di géem a régler ay compte yoo xamante ne naam baax na sax waaye nañ leen sóoraale njabooti yàlla yi d'abord yàlla ne la ma soxla woon na ngeen ma ko joxal sama njaboot yi ah ndax bu ngeen koy andi ci man du ngeen yegg si te pour ngeen yegg si coono moo leen di dikkee su ko defee sama njaboot yaa ngi dëkk ak yéen ni ngeen mën leen ko jox mooy njabootu yàlla yi ña yàlla atti si ñoom ñàkk ña yàlla atti si ñoom seen loxo jotul seen ginnaaw ñooñu ñooy iyadatullah ñooñu ñooy njabootu yàlla ci kaw suuf kon lañu war a jox yàlla nañu leen ko jox njabootam jàmm ni ñooy waaye bàyyi fi njabootu yàlla yi yàlla may la lu ne gàññ mu may keneen ki lu ne gàññ yéen ñaar ngeen di jokkalante xeetu teraanga boobu njabootu yàlla bi ngeen ignoré ko fàtte ko fàtte fàttelu ko ndax du ngeen ko fàtte ndax <laughs> ñokk ko yéen a dëkk waaw kañ moo ko yéen dëkk yéen koy gis nii xam ngeen ni kii amul dooleem jotul loxoom matul ginnaaw lu tax du ngeen ko sedd yéen i neen ñu naan gaal gi dërëm bi du du génn gaal gi daa fekk ngelaw bu baree ñëwul rek waaye yàlla bu ñëw ak ngelawam dërëm bi dina génn gaal gi de te bu génne gaal gi mooy réer na leen fa ngeen nekk di ko jeex di ko ut te du ngeen ko gis su boobaa nag nañ leen bàyyi xel njabootu yàlla moo tax yàlla nee na lañ yanaala llaaha luhuumuhaa yàlla nee na soxlawuma yàpp bi wala dimaa'uha soxaluwuma deret bi walakin li fi nekk yanaaluhu taqwa minkum la ma soxla ci yéen mooy ragal yàlla ba leen di tax a xar bi ragal yàlla ba leen di tax a xar bi ragal yàlla moomu la soxla ci yéen yàlla buur bi nee na kadalika noonu la de saxaraha lakum ma tàggatal leen li nga xamante ne mooy li ngeen di def fukkilu fan ci weeru tubaski kadalika noonu la saxaraha lakum maa leen tàggatal la nga xamante ne mooy yàpp yeeg bijjin yeeg lépp xeetu mala ya chariatul islaam ne nañ ko tubaske xar béy nag gëlëm yàlla ne kadalika noonu la saxaraha lakum maa leen ko tàggatal kenn du rey leen ba ñu di la porte kenn du rey dara ci li la sariya nii lii la ñuy tëbaskee ñu di la yóbbu tribunal wala ñu di la bindal convocation amul waaw reyndil te amuloo ci benn bàkkaar keroog lépp lu waay reyndi ngir yàlla xeetu mala ya sariya loolu lañu ñu war a tëbaskee keroog dangay am yiw moo tax yàlla ne kadalika noonu laa ko defee saxarahaa lakum maa leen ko tàggatal amu leen ci benn bàkkaar amu leen ci dara la nga xamante ne da leen di metti amu leen ci dara li nga xamante ne dinaa leen ko xoolee butu mbëggal saxarahaa lakum maa leen ko tàggatal ngir lan li tukabbirullaha ngir ngeen màggal yàlla bés boobu kon takbiraat dafa war a jolli ñuy naan allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar kabiira walhamdulillahi kasiira wa subhaanallahi bukratan wa allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd xeetu takbiraat dafa war a jolli bés boobu ñuy màggal yàlla di màggal yàlla di wax ne yàllaa fi gën a màgg amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku yàlla waaw yàlla màgg na yàlla màgg na foo ko natt ci màggaayam weesu na ko yàlla buur bu màgg la mboolim xeetu cant yi ñeel nañ yàlla waaw yàlla màgg na yàlla màgg xeetu cant yi yàlla waaw suñu boroom moom la ñuy sàbbal suba su ne ak ngoon su ne ñu ngi sàbbal sa tur jalla wa ala ñu ngi julli si yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi seede na amul benn buur bu yàlla lii la ñuy sàbbalee lii la ñuy màggalee lii la ñuy defee tasbihaat tahlilaal ak tahmidaat nii lañuy ñuy sante yàlla bés ba nii lañuy màggee yàlla nii la ñuy màggalee yàlla bés ba nii la ñuy sante yàlla bés ba nii lañuy sàbbale sàbbalee yàlla bés ba moo tax yàlla ne kazalika noonu la saxaraha lakum man yàlla maa leen tàggatal lépp li ngeen di nara a reyndi te shariatul islaam daganal ko ngir ñu defee ko tëbaski ngir lan li tukabbirullaha ala ma hadakum ngir ngeen màggal yàlla ci lam leen orienté orientation bi mooy ngeen doon jullit ngir ngeen doon xëytu sayyidina muhammad ñi nga xamante ne da ngeen di ngoy ci diini islaam mu doon xéewal baleen yàlla àndil kon mu doon ñitti xéewal xéewal bu njëkk ba mooy ngeen bokk ci xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaareelu xéewal bi mooy yonent bi nekk seen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteelu xéewal bi mooy yàlla xéewale leen diini islaam bi nga xamante ne mu ngi naan ci ali imran inna diina inda allahi diina ba yàlla reconnaître fa moom mooy diini islaam boo demee xool ci beneen aaya mu ngi naan ba léegi ci saar bi al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum nicmati wa raditu lakum al diina al yawm mooy bés bi nga xamante ni mooy xijjatul weda aj bu yonentu bi mujjee aj keroog ba aaya bi doon wàcc buur yàlla ne ci maanaa aaya bi al yawma bés ni ki tey akmaltu lakum diinakum tey laa matale seen diine bi wa atmamtu aleykum nicmati tey laa matal sama xéewal yamaleen yénkeewal tey laa ko matale tey tamit mooy bés bi nga xamante ne wa radaytu lakumul islaama diina gërëm naa ne seen diine bi mooy islaam ba ma reconnaître fa man islaam bi ngeen nekk nii yow sama ndaw yàq say xeet diine islaam ba ngeen ngoy nii xam leen ne bés ni ki tey diine boobu laa reconnaître ca man yàlla ne mooy islaam ba ma reconnaître diine islaam bi ngeen nekk nii laa reconnaître fa man yàlla ne mooy diine moo tax nga gis aaya bi tëjee war reytu lakumul islaam man yàlla bés ni ki tey gërëm naa seen islam bi ngeen nekk nii mooy diin mooy diine faman yàlla kon képp nga xamante ne mooy nga ci beneen diine bu dul islaam yàlla ne ci aaya bi ci beneen aaya wa huwa min waaw moo tax mu ne wa man yabtaxi gayra islaama diinan képp ku moy ci leneen lu dul islaam nga jàppe ko mooy si diine yàlla nee na falan yuqbalu minhu duñ ko accepté duñu accepté sa diine boobu de wa huwa fil axirati min al keroog bés penc di nga bokk ci woy perte kon yow mi ngoy si diine moo tax yàlla ne li tukabbiru llaha ala hadaakum na ngeen màggal yàlla sabbal ko delloo ko njukkal wane ne moom ndongo fi nekk ci lim lañ orienté ci ngeen doon xëytu Seydina Muhammad waaye nag ci limoon leen baaxee ngir ngeen doon ña nga xamante ne da doon ay jullit yu tënk ci diini islaam ndax yàlla mun na laa boole nga tënk sa bopp feneen yàlla mun na laa seetaan ci manduteem nga nekk leneen kon bu la yàlla orienté bi nga nekk jullit kon bisu Tabaski mala bu am bakken ni yow nga tëral ko jëfandiku ko nga jëfandiku ko comme na ko islaam sante amul dara loo ci faggu ci bàkkaar bu duwutoon mbaaxu yàlla ci yow ah loolu dina metti wallahi su ko defee yàlla nee na li tukabbirullaha ngir ngeen màggal yàlla bakk ko sant ko ci ay xeetu takbiraat yañ doon yëkkati ci ginnaaw tuuti rekk ci ala ma hadakum ti lim leen orienté yàlla nee na nag wa bashiril muhsinin na nga bégal gaa yi nga xamante ne lépp lu ñuy def ci sama sandaane man yàlla dañ koy taaral dañ koy rafetal ba ma ba leen gërëm waaw nit ñooñu nag ñu meloo melokaan wi nga xamante ne nayu ñoo jënd xar cinq cent ñi nga xamante ne nañu ñoo jënd xaru cent mille francs dix xar ñu distribuer ko ci fukki faqiir wala fukki miskin ñi nga xamante ne nañu ñoo jënd fukki xar yu cent mille distribuer ko ci ñu ko yorul na nga ñu ñooñu ñooñu la yàlla wax ne wa bashiril muhsinin na nga bégal way rafetal ñi na nga bégal ñu nga xamante ne dañuy def achat bu doy jëmmale ko ci ki nga xamante ne daka soxla te mënul laaj te loxoom jotut ginnaawam na bégal ñuy ñuy comporté woo comportement bu noble bi wa bashiril muhsinin na nga bégal ñi nga xamante ne guddi dañuy def achat bu toll ni day dem weer lëmm dem fugg buntu miskin mu ubbi ñu ni ko ko juux waaw ñu daal di joxe gannaaw ñaan sax duñ ko fa xaar yal na la yàlla fekk yal na la ko yàlla defal yiw loolu sax duñ ko fa fekk waaw ñiy def geste bu noble bi yàlla ne nang leen bégal loo leen di bégal ah loolu loolu loolu loolu du xëj ci émission bi sax asumala waaw du xëj ci àddina si astumalaa ci émission bu gàtt bi waaw wa bashiril muxsinin na nga bégal way rafetal ñi ñi nga xamante ne dañuy rafetal jëmale ko ci njabootu yàlla yi wa bashiril muhsinin yàlla nee na yonent bi ne na nga bégal ñi nga xamante ne dañuy rafetal dimbali ko ci jaamu yàlla ba ñuy jaamu yàlla dañ ciy rafetal ba mu ne jekk dañ koy jekkal ba yàlla gërëm leen na leen bégal lan arjanna ak njëggalaa koor ndax bés pénc keroog wallahi ku yàlla accepté sa jëf jéggal la say bàkkaar sa gannaaw bandang ah te fii nga koy liggéey nag te ci moment boobu la ñu toll nii mbokk yi ci moment boobu la ñu toll ni wa bashiril muhsinin yàlla nee na na nga bégal way rafetal ñi nga xamante ne dañuy rafetal jëmale ko ci mbokk bi wa bashiril muhsinin na nga bégal way rafetal ñi nga xamante ne dañuy rafetal jëmmali ko ci njabootu yàlla ñu seen loxo jotul seen ginnaaw wa bashiril muhsinin na nga bégal way rafetal ñoo xamante ne dañuy rafetal jëmmali ko ci am di jàmm yeeg ñay taxawee diine bi wa bashiril muhsinin nanga nga bégal rafetal ñi nga xamante ne dañuy rafetal jëmale ko ci mboolem xeetu jaamu yàlla yeleen yàlla sàmmaloo ngir ñu di ko def wa bashiril muhsinin na nga bégal way rafetal ñi nga xamante ne bés ni ki tey bés ni ki avènement bii nekk ni dañuy jënd lu doy joxe ko maye ko ngir xol yi fiix wa bashiril muhsinin na nga way rafetal ñi nga xamante ne dañuy rafetal ngir yàlla bég si ñoom subhaanahu wa taala yàlla daal di jeexalee aaya bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha xamal ne sa borom yàlla de yudaafiu an alladina amanu mooy défendre mooy muccal sauver ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla bu yàlla dogalee nga bokk ci way rafetal ñi nga bokk ci ñu gëm yàlla sa gëm yàlla boobu tax ngay rafetal jëmale ko ci mbooleem li la yàlla sant ne nang ci nekk nga di ci nekkee ab ànd ak rafetal bu toll ni yàlla day kontaan ci say mbir yàlla nee na yonent bi na inna allaha xamal ne naka yàlla de yu daafiu muy fanqal muy musal anil na amanu jëmmale ko ci ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla waaw danga bëgg yàlla fanqal la mboolem ngi àddina kon na nga bokk ci ñi rafetal jëmmale ko ci njabootu yàlla yi danga bëgg yàlla fanqal la mu doon défendre balay défense ci lépp li nga xamante ne la tiital la wala la lor la na ngay rafetal jëmale ko ci njobootu yàlla ñi nga xamante ne yaa leen tane waaye na nga rafetal jëmale ko ci mbokk joo xamante ne yàlla moo dogal nga bokk ñoom meen wala géño xamal ne yàlla moo ne yonent bi ne inna allaha naka yàlla yudaafiu mooy défendre mooy muccal anil diina amanu jëmmale ko ci ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla ci mboolem loraange baleen na la lor mboolem tiis ba nar a dal seen kaw yàlla moo leen ci musal waaye day fekk ne nag nga tënk sa bopp ci woy rafetal ñi nga xamante ne yàlla daf la yàlla daf ne yonentu bi ne wa bashiril muhsinin na nga bégal woy rafetal ñi nga xamante ne dañoo gëm yàlla moo tax yàlla nee na man yàlla de kuy défendre la képp ku di aji gëm yàlla ci lépp lu ko nar a lor lépp lu ko nara a sonal lépp lu ko nara a andil tiis ak njaaxle ak euh, xel bu ñàkk dal yàlla moo yore sécurité ña nga xamante ne ñooy rafetal waaye yàlla moo yore sécurité ñi nga xamante ne ñooy ñu lamboo gëm yàlla buur bi tabaraka wa taala daal di si teg ne inna allaha naka yàlla de laa yuhibbu bëggul laa yuhibbu yàlla bëggul tëdd ko musa bëgg ilal abad kan kulla xawaanin kafuur képp kuy géema njuy la yàlla tracé nga doon ko weddi njekk bala yàlla defal yàlla nee na képp kuy njuy la ma ko tracel ma ne nga mel nii nga ne deet yow doo mel noonu neneen nga mel yàlla nee na bëgguma la tëdduma la musa bëgg waaye yàlla nee na bëgguma tamit képp koo xamante ne defal naa ko xéwal mu jël sama xéwal bi wëlbati ko ko mu nekk mbewte ci moom yàlla nee na yow yaay baadoole bëgguma la til duma la mus a bëgg ñaari critères yi gis nga pour mel ñaari critères yi yàlla nee na maa ànd ak ñooñu waaw muy ñan wa bashiril muhsinin yàlla nee na na nga béggal ñoo xamante ne dañuy dañuy dañuy rafetal dañuy rafetal jëmmali ko ci li ma leen sant waaw ndax man yàlla may défendre may sauver may muccal képp koo xamante ne teg nga sa tànk ci daairatul imaan teg nga sa tànk ci daaira woyu gëm yàlla ñi man yàlla maa lay défendre kii yàlla nee na bégal na nga bégal ñuy rafetal fii mu ne man yàlla may défendre may muccal képp koo xamante ne teg nga sa tànk ci daairatul imaan ci kuréelu way gëm yàlla ñi yeneen ñaar yi ne yàlla ne bëgguma leen soxlawuma leen te duma leen musa bëgg muy ñan inna allaha naka yàlla laa yuhibbu nee na bëgg ma waaw inna allaha naka yàlla laa yuhibbu du bëgg bëgg ko te du ko musa bëgg ilal abad ñan kulla xawaanin képp koo xamante ne danga njuy yàlla aw yàlla ne la fii la nga ne du foofu yàlla ne la nii la nga ne du noonu yàlla ne la defal nga ne maa lànk ba tëdd si naaj bi duma ko def yàlla nee na bëgguma la su booba waaw kafuur bëgguma tamit ku ma defal xéwal nga weddi sama xéwal weddi njekk ma xañ sa morom tibb jox la nga jël loolu ma la jox di ma ko moyen di ko kókkalee ki ma xañ te amaana kooku wërsëgam ak sa wursëg laa boole taxañ jox la ma xool ba xam di ko gistu wala doo ko gistu nga ne bi ma doon liggéey gaa ngi nelaw ku la ko wax ba ma doon xëy xëyagu leen ku la ko wax loolu leen ëppali dara ah zalika fadlullahi yuti man yasha loolu ngeneelu yàlla la rek mu jox la ko waaye bu ko ndamoo bu ko ndamoo waaw fexeel nga bokk si ñaar yu njëkk yi wa bashiril muhsinin na nga bégal way rafetal ni ñuy jëmale si ñi nga xamante ne seeni loxo jotu seen ginnaaw yàlla atte si ñoom ñàkk na nga rafetal jëmale si ñooñee yàlla nee na bëgg naa ko mel nii de te bëgg naa tamit koo xamante ne dafa teg tànkam ci kuréelu way gëm yàlla ñi man yàlla maa koy sauver maa koy défendre ci lépp lu ko nar a dal ci lu ñaaw waaye nag gis nga ñaari inna yi bokkul de beneen inna bi ah dane inna allaha naka yàlla yu daafi o may défendre may sauver ñan ani ledina amanu ñu gëm yàlla beneen inna allaha bi mooy fin aaya bi inna naka yàlla de laa yuhibbu déet muy sopp kan kulla xawaanin képp ku weddi njëkk képp ku koy géem a tromper képp ku koy géem a nax képp ku koy géem njuy képp ku nekk workat yàlla nee na bëgguma la ngay wor yàlla ci xéwal bu mu la defal yàlla nee na bëgguma la de kafuur ak képp koo xamante ne day weddi njekk yàlla tibb jox la beral la loxo jox la nga weddi njekk loolu yàlla nee na man yàlla bëgguma ko moo tax yàlla ne ci aaya bi lan yanaalu llaha luhumiha déet yàlla muy soxla yàpp bu jóge ko ci gàtt gi wala ak nu munti doon wala dimaa'uha wala deret ba yàlla nee na soxlawuma ñaar yooyu de walakin li fi nekk yanaaluhu la lamu soxla ci yéen at taqwa muy ragal yàlla muy sóor yàlla ci lépp minkum ci yéen kadalika noonu la saxaraha lakum yalla tàggatal leen gàtt yi ngeen di jëfandikoo ngir lan li tukabbirullaha ala ma hadakum ngir ngeen màggal yàlla ci lim leen orienté ngeen nekk julit ngeen nekk si ci xëytu sidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla ne wa bashiril muhsinin na nga bégal way rafetal ñi inna yudaafiu mooy défendre mooy muccal muy sobe anil ladina amanu gaay ñu gëm yàlla inna allaha naka yàlla laa yuhibbu bëggul te du musa bëgg kulla xawaanin képp kuy warkat ci xéwal yàlla yàlla defal kafuur nga nekk kuy weddi njekk bala yàlla defal kon mbokk yi waxtaan bi jeexul waxtu bu ñu cërale moo mat sëkk ñu war jébbal bërëb ñu war a joxe xibaar ci nasaraan saa ilina mawla jalla wa ala an yataqabala minna wa minkum saalih amalana allahu akbar allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd wa kullu amin wa antum bi xeyr baraka allahu li wa lakum fi alqur'ani aladim wa nafa'ani allah wa iyyakum bima fihi min alayati wa dhikri alhakim wassalam asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.